ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen baalu xaq te di leen ko baal te ñaan sunu borom subhaanahu wa taala mu boole ñu baal di jiital ci nuyoo yi ak ziyaar yi ak ñaan yi cheikh Mouhamadul Muntaqa sunu borom subhaanahu wa taala yàggal ko fi lool ba li mu yéenee lëggéeyal Serigne Touba yéene ko lëggéeyal taalibe yi Serigne Touba yi mu àggale ko ci na ma ko bëggee te lépp mu ànd ko ak dellu di ñaanal mboolem kilifa yi diine yëpp waaye mboolem jullit réew mépp ak bitim réew di ndokkeel jullit ñëpp tamit ci weer wi nga xam ne mam lañu ñu tàbbi muy weeru am barke waaye di nekk weeru yiw muy rabion la awwal di weer wi nga xam ne ci ki gën ci mbindeef yi gane jamono tombe caak fukki fan ya wala fukki guddi ya ak ñaar mooy ki nga xam ne ci moom la yàlla tëje nubuwa gi nga xam ne ginnaawam ab yonant du ñëwaat mu nekkoon koo xam ne bim ñëwee la génne nit ñi ci lëndëm lëndëm réer waaye jëme leen ci leer gu leer naññ muy leer dëgg xamal leen kan mooy seen boroom ñu war ko topp topp ko ci dëgg waaye la nga xam ne moom la ñu nekkoon muy ay caaxaan ñu bàyyi ko te bañ caa dellooti alquran di wax jaa al xaq wa zahaqa al baatil inna al baatila kaana zahuqa guddi googu nag nga xam ne moom la ñu mal incha allah moom lañu ñu fas yéene waxtaane mooy lan ak naka lañu koy defee ak ginnaaw ba tamit ku ko def lan nga ci mën a màngee ci aw yiw eh, njëkk loolu nag guddi googu dañu wax ne ci diina diine amee mbékk comme ni ko Muhammadul Busayri waxe ne laylatul mawlidi alladi kaana lid diini sururun bi yawmihi wasdihaau noonu eh, tamit la ko sëriñ Touba radiyallahu anhu jàngalee tamit ci ay téeréem te dooy na rek ñu yam ci am jàngaleem ni mu ko waxe te suñ demee ci jazbu jazbul qulub dañu fekk mu ciy wax lu mel noonu di wax ne laylatu mawlidin nabi laylatu mahwi riya bi laylatu mahwi taabi wa tuhrizit bi biha najaatu wal falaax maha sururi wan najaax bihi rabaax wasalaa maam di fay niqami kon gudd la goo xam ne guddik far sikk la waaye guddik far coono la waaye guddik laabal borom bàkkaaru la waaye nekk guddik mucc di mujjuk di guddik texe waaye di guddik mbëkk waaye di guddik pajuk aajo waaye di guddik tonawu waaye di guddik eh, yéwénu waaye di guddi goo xam ne eh, guddi jañ mbugal la loolu nag mooy ñi nga xam ne xam nañ yoonu dëgg te nangu caa topp te bëgg caa jaar ñooñ ñoo cay amee loolu waaye ñi nga xam ne dañoo nekk ci ab safaan nga xam ne bëgguñu dëgg bëgguñoo jaar ci yoonu dëgg bu dëgg ñooy da leen di seene moo tax moo tax ñooñu guddi googu guddi mbugal lay doon ci ñoom mu ne bi nga xam ne feeñ na noonu nga xam ne noonu la nekk guddig mbég comme ni ñu ko waxee woon léegi noonu la nekk musiba tamit ci yéefar yi comme ni ko Muhammadul Busayri waxee mawlidun kaana fii taalil kufri wabaalun alayhim wa wabaawu kon guddi la goo xam ne ci yéefari moom guddik tiis ak la ci ñoom boo demee ci sëriñ bi na ci yu noonu bokk na ci yooyu ñi nga xam ne eh, waa Faris lañu ñu daa jaamu nga xam ne ay xërëm la walla yu ko nuru ñooñ gis nañu ne biñ ñëwee bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñëwee bari na yu mu def ci ñoom gis nga sawara woowu nga xam ne moom lañ daa jaamu nga xam ne dañu wax ne jaamu nañ ko lu yàgg-yàgg nga xam ne lu mat junni at dafa am ñoo xam ne ñoo féetu woon di ko xam bu guddeeg bëccëg nga xam ne du fay mukk-mukk waaye bi yonent bi sallallahu alayhi wa feeñee jamono rek sawaro daa daa di fay noonu e, seen bëtu ndox boobu ñu daa ko tuddee buxeeratu saawa ginnaaw bi nga xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñëwee am na xew-xew bu xew ci ñoom te la woon dafa nekkoon ndox mu yaatu mu bari moo xam ne daanañ ci jëriñu lu bëree bari daan sax gaala gaal daanañ ndaw diggante dëkk dëkk ci jegante ci diggante boobu kon day wan ne kon xaw naa yaatu te daañ jëriñu lool waaye bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñëwee danga gis ne ndox moomee daa daal di ñiis mal ne mësatu faa nekk loolu nag jaaxal leen lool lool loolu mooy tegtal ne bu dëgg ñëwee moom lu dëgg dafay daal di jóge naka noonu asamaan yi bi nga xam ne eh, namm nañoo yoon yónent bi sallallahu alayhi wa dañ koo raxas te la ko jiitu woon sayaatinul jinn yi dañ fa daa nekk di déglu xibaar yi asamaan yi bu ñëwee di ko nettaliwaat njabarkat yi njabarkat yi loolu ñu koy nettaliwaat nit ñi man la ñoom dañoo xam kumpa waaye bi ñu yónnee Seydina Isa dañ leen a aaye woon ñoom jinne yooyu lu toll ci ñetti ñetti asamaan dañ leen ko aaye woon ginnaaw bi ñu leen aaye ñetti asamaan yooyu nag bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam feeñee jamono ay gis ne e, mboolem asamaan yëpp lañ leen daal di mujj aaye waaye nag teewut ci coobeere yàlla daanañ ñëw nag bay jege di xaw a déglu nga xam ne sax daana wax ne daanañ dégg sabi xalima yi nañuy binde ci allooya loolu avant ñuy yoon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la waaye bi nga xam ne yónni nañ ko dañ leen a wala fuñ nara toog nar a tuglu rek nar a déglu ay njum moo leen fay fekk di leen dàq nga xam ne suñ fa jógewul rek da leen daal di lakk comme ni ko gisee ci alquran muy wax ne wa inna kunna naqudu minha maqaida lissama kon fa man yastami l aan yajid lahu shihaban rasada nekk noonu tamit bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallama feeñe jamono dafa am leer goo xam ne moo fenk leer nañ waxan sax ñi nga xam ne ñoo nekk màkka dañ daal seen ñi nga xam ne ñoo nekk ca euh, euh, Rome maanaam njënni xaysara yooyu dañ ko daal séen dañ ko doon séen ci guddi googu naka noonu tamit ña ña nekk Màkka dañ doon seen Busra waaye loolu mooy leer gi nga xam ne moo fenk ci ginnaaw bi nga xam ne yonent bi sallallahu alayhi feeñ na ci guddi euh, bi nga xam ne moom la Kisra neew nekkoon dañuy wax ne guddi gi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam feeñe jamono dafa rëng-rëngi ba lu mat fukki balcon ak ak ñeent daanu ca lalu buur ba daal di damm loolu lépp di wane ne dëgg moom ñëw na lu du dëgg dafay daal di jóge te loolu noonu la ko sëriñ bi waxe ci ay téeréem boo demee ay fekk moo wax ne xawat xawaari xabadat hani ruwaati sabatat kamit li naari nut fi at mahammihaa i daqami wa ayni saawatallati qad azumat wa jallati lil fursi qabla al millati wa suyirat kal adami wa kanqidaadi shuhubi tordan li ahli riyabi an samhi axbaari nabi wa rajau bi nadami turida fiha bin nujum an samawati rajim wa farra qaasira yulim bi xisbi daawakami سطع حين ولد خير نبي قد بدا صلى عليه من هدى فؤاده بالحكم نور عظيم قد يرى به قصور قيصر من كان في أم القرى مكة خير الحرم إيوان كسرا صدعا فيها وقبل رفعا سم كله فارتفعا نحو السما المكرم أتى السرير انكسر لأجل هول النعترى من نور أفضل الورى ربي عليه سلمي kon loolu mooy xew-xew yi nga xam ne xew na ci Eh, bi yonente bi sallallahu alayhi wa feeñee jamono mu des nag naka lañ war a guddi gi loolu dañuy xool ci ni ko sëriñ bi jàngale sëriñ bi radiyallahu anhu kenn ku ne xam nañ ne dadaa dundal guddi gi bi sallallahu alayhi wa te teel na koo def ndax wax na ci ay xasidaam axyaytu mawlidan mawlidan min asasin kon day wane ne ca asas la tàmbali woon a gàmm kon moom teel na koo def lool lool euh, naka noonu dadaa soññi mboolem taalibe yi ci ñu koy defe nii maanaam di ko gàmmu teg ko ci sunna si yonent bi sallallahu alayhi wa waaye nag di fàttali ay ngëneelam ak tedd nga li nga xam ne moo ci nekk moo tax mu wax ne mu muazzamu mubaarakun muxtaramu yan tanzimuhu yanxatimu ala dawi taqaddumi nga xam ne kon màggal ko day mel ne lu waral lu mënta ñàkk la waaye teg ko ci kaw sunna ni nga xam ne tamit noonu lañ ko teg ci sunna moom da koo def ñi nga xam ne joo jabanante moom gis ko gis na ma ko daa defee te mooy eh, di ci taxawal ay kuréel yoo xam ne dañuy féetewoo jàng alquran ak ñoo xam ne dañuy féetewoo jàng xasaayid yi te xasaayid yi ci gën a miin mooy yi nga xam ne ci lay tagge yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak ci lay julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye nag noonu tamit di jàngale xissab eh, yonent bi te lool boo seetloo ci jamono bi comme ni koy defee nga xam ne ay kuréel ñooy jàng eh, ñetti xasida su ko defee moo ne jas bu lay doon ak mawaahibu ak muqaddimaat am ko xam ne mooy jàng barzam bi noonu lañ koy toppoo di ko gàmmoo noonu nga xam ne noonu la ko daa defee tamit daa waajal ay ñam di ko yóbbu ci ñi nga xam ne Eh, ñooy eh, màggal guddi googu eh, ngir taral leen ko ko nekk noon yoon woowu nga xam ne noonu la ko daa defee noonu la ko ci mag ñi doon roye tamit daan dundal guddi gi bokk na ci dëkk bi ñu nekk mooy Touba ak daaru Daarul Moxti ak Daaru Salaam ak Boqatul Mubarak ci njaareem nga xam ne yooyu yëpp boo demee ak yi anam gu mel nii la ëpp ci lañ koy dundale loolu mooy màggal ko ci anam goo xam ne dana dëppook ni ko sëriñ bi daa defee kon suñu waxee gàmm mooy kon dañ koy teg ci sunna sunna nag mooy lépp loo xam ne boo ko xoolee du génn alquran du génn njàngaleem yonent bi sallallahu sallam ndax boo seetloo jàng alquran suñu borom moo ko santaane soo demee ci alquran da ngay gis ne mu wax ne faqra'u ma tayassara min alquran kon amul wenn waxtu woo xam ne ci lañ lay aaye nga jàng alquran kon ki nga xam ne da koy def ci guddi gi ngir dundal guddi gi kon mi ngi def loo xam ne da koo teg ci njàngalem alquranul karim naka noonu di julli ci yonente tamit sallallahu alayhi wa soo demee ci eh, alquran ba léegi dañ dañoo gëm ñuy julli ci yonente bi waaye di sëlmal ci moom comme ni mu waxee yaa ayyuha alladina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima te loolu moom sax sun boroom moo ci jiitu eh, ñi mu koy digal ndax moo ko njëkk def mook malaayika yi dellu sant ko mboolem way gëm yi kon loolu koo xam ne noonu la koy màggalee tamit na xam ne teg na ko ci sunna su yonente bi sallallahu alayhi wa sallam waaye teg na ko tamit ci alquran naka noonu di ko màggal teg ko ci ay azkar mooy di tudd yàlla lu baree bari loolu tamit soo ko defee dañ naan ni nga ni nga màggale wala ni nga gàmmoo ah, génnut sunna su yonente bi sallallahu alayhi wa waaye génnut njàngaleem alquran it te alquran dafa uzkurullaha zikran kathira kon tudd yàlla ku baree bari nga xam ne amalu ko àpp moom naka noonu di ko def ci ay istixbaar nga xam ne euh, da ngay fanaanoo noonu wala li ëpp ci guddi nga defe noonu kon tamit boo ko defee noonu buñ boo noppee dañ naan yow ni nga gàmmoo tengoo ko ci njàngaleem waaye tengoo ko ci sunna si yonent bi saa salaam te alquran dafay wax istaghfiru rabbakum innahu kaana ghaffara naka noonu ñi nga xam ne dañuy jël ay ñam tamit nga xam ne yàlla def na xëy na mën ñoo jàng wala sax mën nañoo jàng waaye nag daa am anam guñ gën a mane mooy jël ay ñam di ko jox ñi nga xam ne ñooy taxawee guddi googu ñooñ tamit so euh, lañ koy la def teg nañ ko ci alquran waaye teg ko ci sunna yonente bi sallallahu alayhi wa te boo demee ci alquran dafay wax ne innama nutimukum li wajhillaahi la nuriidu minkum jazaa'an wala shukura nga xam ne ñoom bañ ko def jëm yàlla kese moo tax ñu koy def santuñu ci ku leen ku ci fay waaye santuñu ci ku leen ci sant nga xam daal loolu moom neexu leen ci nga xam ne leen ci neexul mooy dañ koy def ngir jëm yàlla kon loolu lépp boo seetloo ku ko xam ne nii la ko màggalee daal xam ne moom teg na ko ci njàngaleem alquran waaye teg na ko ci sunna Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam eh, ku ko màggalee noonu nag na xam ne da nga ca mànge aljanna ci sababu googu tamit suñu borom mën naa dolli say xew comme ni ko sëriñ bi waxee eh, yaquduna lil jannati bi diyaadul minnati waaye nag ci lan mooy koo xam ne da ko sellal li muxlisin muazamin lu mat a bàyyi xel maam soo ko def ne jëm yàlla tax nga di ko def waaye bu ko def ngir puukarewu wala ngir da ko def ngir ngistan waaye da nga koy def ngir jëm yàlla yi kase soo ko defee noonu rek dañu xam ne kon màggal nga ko te sellal nga ko tamit koo xam nag màggale na ko noonu na xam ne yiwu baree bari mën na ko caa màng mën na ko caa amee te loolu boo demee ci njàngalem sëriñ bi danga ko ca gis moo wax ne koo xam ne taxawe na guddi gi nii mel na ku teew woon xare badar ba faatu ca nga xam ne yoolu ba nga xam ne moom la ca ñooña amee yow danga ko ca danga ko ca amee fa man yuazim mawlida xayr xayril baraya ahmada faka shahidin shahida badram bi xayri wahami kon loolu lu mat a bàyyi xel la lu jara a fonk la tamit ndax am yool bu tol noonu ci ñi nga xam ne ñoo tee woon ba dara yombut te guddi gi bu la rawee mën naa ne balaa dellusiwaat di déwén te xamoo dana la fekk boo la fekkee nga xamoo la xam da nga maanaam déet la moo tax koo xam ne yàlla def na nga fekk ko nga war cee góorgóorlu bu baax a baax naka koo xam ne dépassé na ci alalam ngir jëmmi yàlla nga xam ne lum néew néew donte benn dërëm la na xam ne tamit euh, mel na ne woon teewoon euh, xareb Xunayn waaye mel na tamit woon teewoon xareb Badar waaye tamit dimbali yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci xare boobu kon ñooñee nga xam ne ñoo woon xare yooyu lañ ca woon lépp yow da nga ca am yu wuutal noonu te loolu sëriñ mooñ ko jàngal ci ay mbindam fa kullu man anfaqa fii mawlidihi l musharrafi maalam bi gayri sarafi walaw bi qadri dirhami fa innahu kaman xadar yowma xunaynin wa sabar wa yowma badrin wa nasar xayral waral mufahimi xayral wara mufahimi kon loolu lu mat a bàyyi xel tamit lu mat a fonk la tamit naka noonu tamit sëriñ bi wax ne képp koo xam ne jàng na jàng na dara ci guddi googu la mu jàng moo xam daa am liggéey bu muy liggéey ba mu barkeel mu jàng dara tefli ko ca ngir loola barkeel wala sax mu jàng yéene ca loola barkeel sunu borom dana dolli loole dana ko dolli bu baax a baax ci daraja yonente bi sallallahu alayhi wa sallam comme ni wax ne waman ala cheyin xara mawlida sayidil wara tabarrukan fa sa yara nu mu waxoo bil fadqomi kon loolu lu mat a bàyyi xel la nga xam ne boo xoolee ci am ngañaayal adduna waaye am ci ngañaa ngañaayal alaxira na xam ne boo seetlu lañ jiitu li jiitu woon ci liñ doon wax boo seetlu lépp mën naa ne yi yaa ngi ciy amee nga ñaanal alaxira lii mu wax nii nag nga xam ne lépp loo xam ne da ngay liggéey bëgg mu barkeel soo ko defee nii suñu borom mën na ko barkeel ci daraja yi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam eh, nekk noonu tamit koo xam ne tamit jàng na ci guddi googu maanaam jàng na ci dara eh, maanaam moo xam dafa jàng ba noppi mu tefli ko ci am ndox ndox moomu mu jël ko naan ko na xam ne xolam day leer ba faw faw naka noonu xoolam day dund te am benn ayib maam du am benn sikk benn lenn lu bon la koy gàllankoor te tamit ñàkk texe suñu borom da ko ci da ci da ci musal nga xam ne comme euh, ku texe lay doon loolu la wax ne wa in ala ma in xuri mawlidu xayril basari fa surbu bil mutahari yakuffu kaydal fa surbu bil mutahari yakuffu kaydal murxami yunawirul qalba sharaab min dalika al maa bil mujaab wala qalba yuxyi du raab an shaqaa yi yaxtami kon loolu tamit lu mat a bàyyi xel la nga xam ne soo seetloo bu ñu gàmmoo ba set nga seen ñi nga xam ne ñoo doon jàng ay kuréel am ñuy jël ay bidon di ko dékk wala di duy ci ndox mi nga moom lañ tëbli loolu ngir xam liñ ci mën a jëlee moo tax waaye nekkul le euh, mbirum bidaa la wala ay euh, xeetu yu xew yu xaw nii rek waaye loo xam ne sëriñ bi da koo jàngale moo tax naka noonu koo xam ne dundal na guddi juddug yonente bi sallallahu alayhi wa sallam suñu borom du yam ci defal ko loolu moom dong waaye njabootam ak ay këram ak xol xolub boppam sax suñu borom da koy saafaraal ci mboolem tawat yi mboolem tawat yi nga xam ne day gàllankoor xol moo tax sëriñ bi wax ne ihyaau mawlidil bashir yaxmil yaala wa duyuur fiihi shifaau li sudur li kulli haadi ñantam yi kon noonu mooy ni nga xam ne noonu la ko sëriñ bi jàngale le tamit li nga xam ne noonu la ci nit ki mën a jariñoo adduna ak alaaxira loolu nag ni ko sëriñ bi waxee noonu lañ ko gëmee noonu lañ koy toppee tamit ndax sëriñ bi eh, ku bañoon bidaa la waaye ku toppoon sunna si yonente bi sallallahu alayhi wa sallam la ku toppoon sunna si yonente bi sallallahu nga xam ne mosu koo mooy ci lenn lenn nga xam ne daka daa topp bi xarfin nga xam ne mosu koo mooy ci lenn noonu nga xam ne la ko toppee woon nag noonu la bañoon bidaa lool nga xam ne lu la loo jàpp ne bi daa gàmm bi daa wala lu ko nuru da ngay xam ne bu ko sëriñ bi jàngalee nii sëriñ moom ku ñu war a topp la ndax dafa wax ne eh, wala chal xafwal musafaa yi diini kon nang ma def may koo xam ne day xeeñtu mboorum yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon moom ku bañoon bi daa la te tamit nii mu ko waxee nii soo ko seetloo tamit mën naa dëpp ak sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndaxte eh, ni ko Buxaari yi nettalee nga xam ne Eh, Abu Lahab dañoo xam ne altine bu jot sun borom day woyefal mbugalam ca sawara ci sababu lan mooy bi yonente bi sa alayhi juddoo dafa mbég mbég moo xam ne dafa mujj goreel jëbeeram bii di suway ba noonu ma ko bégoon mbég moom tamit ba goreel ko moo tax altine bu jot ñu wax ne eh, sun borom subhanahu wa day woyefal mbugalam ci loolu naka noonu eh, wax ci ay xasidaam di wax ne diin ya xafwul mustafa Moustapha xafwul Moustapha Muhammadi qalban wa qaalaban li wajhi samadi nga xam ne moom léppam diineem lépp mooy topp yónni saa salaam biir ak bit la nga xam ne euh, képp koo xam ne woor na la yow sëriñ bi ëppoo ko ragal yàlla gënoo koo maanu ko xam-xam fa mu tegoon tànkam tegoo fa sa tànk ni mu mel ci topp sunu séntu saa meloo ko bu la wóoree ne ni moom rek kon yow waroo ko jéem naa dama koy corriger wala lenn kon euh, nañ bàyyi xel ñun taalibe yi ni ko sëriñ bi jàngalee ñu topp ci noonu ñi nga xam ne tamit xëy na jàppiwuñ ne noonu la ñu maana ci ñoom nañ ko jàppe rek te jéem a gëm ni ko sëriñ bi jàngalee boo ko defee kon foofu la ñu yemale jataay bi ñuy sant ñëpp di gërëm ñëpp di gërëm mbokk yi nga xam ne tamit ñoom lañ doon àndal euh, di ñaan suñu borom gën a barkeel seen liggéey gën ko yëkkati di jégalu baax a baax wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.